ko jukkil doore kook euh, Walf Quotidien yéen a bi jiitu ca fajar mu ngi ñuy dégtal lu aju ci wàllu euh, politique ak euh, tànneef gañu ne xaw naa yéex lool njiitu réew Macky Sall war ko amal tey ci janoom ak ay kàngamu coalition Benno Bokk Yaakaar yéen a ne bokk na ci lu mun a gàllankoor googule tànneef ak la mu mun a jur ci coalition présidentielle bu fekkee ne njiitu réew Macky Sall am na kum ca tànn ñu bari mun nañ ca beddeeku ba wone seen mer ak ñàkk ànd ci tànneef gi ni mel xëtam bu njëkk gëstu na sax li tax yëf yi yéex ba ba léegi munagul sotti waaye nag euh, samedi tey ji la diggée ne dina ci gindi askan wi maanaam ñëpp xamandoo euh, kan mooy candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien du ñu xamal yi tamit ne lu aju ci toogaanu ñaxtu gi nguur gi aaye tukkee ci préfet bu Dakar euh, xañ ko waa F24 bëggoon a amal ndaje foofee ca place de la nation loolee nag mujjut a sotti démb ba tax na ñu joxante dig daje fas yëngu-yëngal ni guddik dimanche gi ñu jëm lu waaye am na fexe ba itamit jibal jibal ko moo xam collection lay doon moo xam bipp moo xam itamit euh, casserole ak yeneen ak yeneen na dëkk bi yëngu noonee lañ ko xamle ñoom waa F24 yéen ak bi di le quotidien desandi ci candidature coalition Benno Bokk Yaakaar njiitu réew mi Macky Sall ma ngay xoolaat carte ya teg na ko ci table ji ban la ci tànn ci candidat yi yëgloogum ci coalition Benno Bokk Yaakaar yéen ak bokk na ci tamit lu aju ci ñenn ci ñi nga xamante ne eh, xëy na eh, remaniement mun na leen a xañ ñu bokkati ci biir gouvernement yenn cabinet lu ne mun na caa tukkee ndax bu ñu noppee ci eh, li nga xamante ne mooy candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar njiitu réew Macky Sall ci lu yàggatul dina soobu ci yeesalaat gouvernement bi yenn cabinet du Sud Quotidien fa la desandi tànne fu candidat bu coalition Benno ñeel élection présidentielle yu 2024 bésub dëgg samedi de vérité noonu la ko yenn cabinet bi xamle yenn cabinet njiitu réew Macky Sall euh, mu ngi euh, janook euh, tànneef gu nar a metti lool gu nar a doy waar tànneef goo xamante ne du yomb ndax candidat yëgloo ci coalition Benno kenn ku ne yëkkati loxoom ne bëgg naa doon candidat ci turu Benno ci élection présidentielle ñu jëm ku demee ni Abdoulaye Daouda Diallo ku demee ni tamit Mame Boye Diao ku demee ni Aly Ngouille Ndiaye ku demee ni Amadou Ba ku demee ni tamit ki nga xamante ne mooy Alioune Sarr demee ni Abdoulaye Wilane mi di eh, dankafu ku demee ni tamit eh, ñeneen ak ñeneen ba ci maam eh, Boy Diaw ba ci Amadou mi nga xamante ne moo jiite assemblée nationale ci jamono ji candidat la ci ñi war a falu ci bopp Benno Bokk Yaakaar pal googe nag njiitu réew Sall du yomb lool ci moom ndax candidat yi taxaw kenn ku nekk jàpp ne bu dul man du baax yéen a bi di 24 heures xëy du ñu dégtal li nga xamante ne mooy kan mooy sol veste bu coalition Benno Bokk Yaakaar fas yéene ne dagaan baatu askan wi ci turu mouvance présidentielle eh, ci élection présidentielle yi ñu jëm njiitu réew Macky mun naa def tànneef bi génn waaye nag na xam ne tànneef googee mun na am ñol-ñol am na ñoo xamante ne mun nañ caa bañ a ànd APR moom xalal na yoon njiitu réew Macky Sall xamal ko ne tànneef boo def daanaka ànd nañ ci yenn kaa bi di 24 heures ne àndul ci ni réewum Sénégal di doxee ak li xew Alioune Tine mi xam ne ne Sénégal ga mu xamoon xàmmeetu ko ndax tey jii Sénégal eh, kenn mënatu fee doxum ñaxtoo ko toogaanu ñaxtu ba tax na ah, dañoo salfaañe ak ak yelleefu doom aadama yi xañ leen seen sañ-sañ ah, doon lu metti lool Alioune Tine mu ngi ci yéen a kii bi di 24 ah, heures yéen a bi di enquête du ñu enquêtal kan mooy doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar yéen a kii bi ne lu yàggatul ay waxtu dañ ko xam waxtu yu dëgg yéen a kii bi moo ñu ko yëggee ci xatam bu njëkk njiitu réew Macky Sall di génne ci week tey jii maanaam samedi gi dina dajeek ay kàngamu Benno élection ngir xamal leen eh, ci lu leer ne eh, diw mooy seen eh, candidat yéen kaa bi moo ñu ko yeggee ci xatam bu njëkk ana ban njeexital lay jur ci coalition Benno Bokk Yaakaar yenn kaa bi ne ndax kii di Amadou Ba doonul ku gën a jege doon candidat bu Benno yéen kaa bi di direct news ne ak lu mun a am ak tànneef bu njiitu réew Macky Sall mun a def ci kay doon candidat bu Benno na jàpp ne ko ke mun naa am jàppale ki nga xamante ne mooy Moustapha Ba di jëwriñ gi wàllub koomub réew mi bokk na ci yéen cabinet eh, munta eh, sori njiitu réew Macky Sall munta sori itamit ki nga xamante ne moom la njiitu réew Macky Sall eh, di tànn ci élection yi ñu jëm yéen cabinet di source di ñu dégtal itamit lu jëm ci waa F24 ñu ngi waajal sabar maanaam yëglu fexe ba Ndakaaru ak feneen feneen riir fu waay mun a toll fexe ba boo jegee oto wala boo fa ne fexe ba klaxon ya jib ak tamit li nga xamante ne mooy tegum kaw diir ak ak yeneen ak yeneen gannaaw buñ leen aye seen toogaanu ñaxtu F24 ne dootuñu seetaan li ni mel ba tax na dañu yëngu-yëngal fépp ci réew mi bu 21 jote jotee jàpp 22h diggé nañ ko ci dimanche gi ñu jëm yéen cabinet lu jëm ci tamit ay soldaru Sénégal ci MINUSMA foofee ca Mali yegg si nañu ci Ndakaaru njiitu réew Macky Sall lu tax mu jël dogal gi ni mel yéen cabinet bokk na ci euh, mu ngi euh, bàyyee xel ci li nga xamante moom mun a dab yooyu le soldats ca Mali euh, chantage ak yeneen ak yeneen mun na caa am yéen cabinet ñu fàttali ne te moo ne des soldats yooyu le ci weeru novembre lañ leen doon séntu ñu ñëw fii ci Sénégal waaye nag ci saa si la leen njiitu réew Macky Sall delloo si jàmbaar yi ñëwaat nañu ci réew mi li nguur gi warloog ñoom ndax dina ko matalam déet yéen cabinet di source xëy du ñu dégtal wàllub yoon kii di Tayib Socé ak Cool Or ba ko yóbbu woon Ndungu na cee am ndam moom Taïb Socé ba tax na euh, yoon indi na lu bees ci googu lépp dossier or euh, kañ ca di Moussa Touré ak euh, Cheikh tijan Diakhaté ña jotoon na yóbbu ci yoon Taïb Socé bi la yoon nag yoon topp na ñaar ñooñule daan na leen sax lu tollook juróom-benn fukki million ak juróom-benn ak yu toftal ñu war a jox ni ndàmpaay ki nga xamante ne mooy Taïb Socé mu ngi ci yéene kii bi di euh, Libération yéen kabi stade ne tey la tey foofee ca Kigali Sénégal Rwanda match la jëm ci éliminatoire euh, Coupe d'Afrique des Nations 2024 euh, ca Côte d'Ivoire bu 19h00 minute jotee ca Kigali gaynde yi yegg nañu ba noppi mooy équipe maanaam guney Aliou Cissé di équipe nationale numéro un bi ñoom la yebal ca Kigali ñoom Sadio Mané ña ca des ña ngay waajal match geneen Algérie Sénégal. Euh, ni ki euh, talaata ji euh, lay doon foofee ci stade maître Abdoulaye Wade yéen a bi di suñu lamb xëy di ñu dégtal Modou Lo dikkaat xam xamle ne daal dafa bëgg a jóge ci arène bi ak couronne bi maanaam doon buuru lamb ji benoone muy bàyyi lamb doon na lu ko yitteel moom modu Xarañ loo moo ko yëggee ci xëtam bu njëkk combat ak Ama Balde wax na ci ne du may lenn Ama Balde ci googule combat.